waaw chers internautes maa ngi fi toog ak ba tey kii di Soxna Ndoumbelay Soxna Ndoumbelay tey nag damaa bëgg nga baax ñu dara ñun mbokk jigéen tàgg dañoo ne 8 mars te yow parfois ma déggantu la ngay mañ yu sew yooyu ñu xool daal mañu jigéen yàgg nañoo wane Pastef démb ba tey jilee yaasin ñu bay biiram Aliou Sidibé Diatta jigéeni ndeer seen way wa fayul soxna jaara yaayu xaadim malak maram may sa saajo balaay su buri sëriñ Mbàkke maram maam asta wala métti na weer way wa du fay du fay du fay waaw loolu soo ko déggee day wane ni jigéen ñi seeni seen way du fay soo xoolee ñu ngi jógee ci euh, poroxaan ji mhm. maam jaaro buso moom rek moo fi am mhm. bés bu mel noonu ci jigéen ah mhm. ay référence lañ Sénégal fi dañu am lu kenn amul ah ni yàlla tuddee saaru jigéen ci alxuraan euh, tuddee leen ko ñoom rek ñoo ko am Sénégal yi noonu lañ ko amee tamit ay jigéen ñoo xamante ne tamit Sénégal rek la am doo ko gis feneen seen way mënul fay ah loolu daal laa leen baaxee ci bi maas <laughs> macha allah soxna Loumbéra lii nga bëggoon ñu koo xañ xam nga ni li neex bi mu neex ëpp na macha allah ko ñoo ko déggandoo li nga xamante ne wax na ko muy la am solo mu woy ko ci soxna jaara mu wax ko ci poroxaan mi nga xamante ne moo passé ko ñun jigéen wax fa dëgg neex na yàlla macha allah ñu moom kenn du ñun ñu ñooy lépp waaw.